nu fonk ko ndax nit su fekkee dafa bàyyi ñëpp ñëw jaayante ak yow war nga ko wax charte yi xam ne moo waral jaayante bi gis ngeen noonu it noo ngi ci jàkk ja ba fa alxaaji abdul aziz jógee nag ca la dem ca jumaa ja jumaa ja nag ngeen dégg sànq moom ci boppam mu fay waxtaan Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Seyni Serigne Moustapha Sy ci ndigalu Serigne Moustapha Sy ndax dañu di ñaari njaboot. ndax dañu di ñaari njaboot. ndax dañu di ñaari njaboot. njaboot yu fekk si njaboot. njaboot yu fekk si njaboot. njaboot yu fekk si njaboot. ndax tey Serigne Moustapha. ndax tey Serigne Moustapha. ndax tey Serigne Moustapha. ku ne xam na ni moom moom kër gi. ku ne xam na ni moom moom kër gi. ku ne xam na ni moom moom kër gi. mooy taaw ci Serigne Babacar Sy. mooy taaw ci Serigne Babacar Sy. mooy taaw ci Serigne Babacar Sy. di taaw ci El Hadj Abdoul Aziz Sy. mooy taaw ci El Hadj Abdoul Aziz Sy. di sunu kilifa. di sunu kilifa. di sunu soppe. di sunu soppe. am ñeewante ci sunu wàll. am ñeewante ci sunu wàll. te di ko doxal. te ko doxal. fa tabarakallahu. fa tabarakallahu. koo xam ni. xam ni. bu teewee. bu teewee. ngay surga. ngay surga. su la yabalee. su la yabalee. bëgg na nga tiitaru. bëgg na nga tiitaru. Eh, loolu rek mooy li ci nekk. loolu rek mooy li nekk. te bu teewee. te bu teewee. te bu teewee. bu teewul. bu teewul. bu teewul. surga lanu waaye comme noo ko teewal nag noo ko teewal nag bëgg na rek nu tiitaru waaye bëgg na nag nu tiitaru ngir yàlla ak ñeewent ngir yàlla ak ñeewantanu ak yàlla ak xaritoo nag ak yàlla ak xaritoog nun ndax loo gis ndax loo gis ba ci diggante surga kilifa sax ba diggante surga kilifa sax xarit dana ca tabbi xarit dana ca tabbi xarit dana ca tabbi فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نونكاي نيانال نونكاي نيانال نونكاي نيانال للشيخ الحاج مالك ام للشيخ الحاج مالك ام للشيخ الحاج مالك ام دومم يوتدي امكو دومم يوتدي امكو دومم يوتدي امكو يال نكو تي يالا جوخ لو اوب لي مو جوخ نييب لو اوب لي مو جوخ نييب لو اوب لي مو جوخ نييب لو اوب لي مو جوخ نييب تبارك الله مو مون ني تي سيد سونو والا تبارك الله بام mu mën nu caa sédd sunu wàll. sédd leen ca seen wàll. sédd leen ca seen wàll. dafa mel na. dafa mel na. ñi fi ñëw ñëpp. ñi fi ñëw ñëpp. njabootam lañu. njabootam lañu. waaye yéen nag yéenay njabootu wanagam. waaye yéen nag yéenay njabootu ala uh, wanagam. yéen nag yéenay njabootu wanagam. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal. ñëpp njabootam lañu. ñëpp njabootam lañu. ñëpp njabootam lañu. waaye yéena di wanagam. waaye yéena di wanagam. ndax sëriñ Babacar dafa daan wax ni. ndax Serigne Babacar dafa daan wax ni. ndax Serigne Babacar radiyallahu taala anhu daan wax ni. ñëpp taalibe lañu. ñëpp taalibe lañu. waaye waa jàmm gën ñooy sama wanag. waaye waa jàmm gën ñooy sama wanag. yéenay wanagam tabaarkalla yéen itam tubaarkalla yéenay wanagam. yéen itam tubaarkalla yéenay wanagam. yàlla yéen yéen la ko yéene. yàlla yéen la ko yéene. yàlla yéen. yéene. jox na leen ko. jox na leen ko. jox na leen ko. yal na ngeen ko yàgg a muurloo. yal na ngeen ko yàgg a muurloo. yal na ngeen ko yàgg a muurloo. danu bokk koog yéen. danu bokk koog yéen. danu bokk koog yéen. nu ngi leen di ndokkeel ci bis bi. nu ngi leen di ndokkeel ci bis bi. nu ngi leen di ndokkeel ci bis bi. fa tabaarakallaahu bisu barke la. fa tabaarakallaahu bisu barke la. fa tabaarakallaahu bisu barke la. ñaari yoon ak ñetti yoon. ñaari yoon ak ñetti yoon. ñaari yoon ak ñetti yoon. Tiwaawoon. Tiwaawoon. Tiwaawoon. bésam yëpp barke la. bisam yëpp bisu barke ajuma ajuma bésu barke ci lislaam. bisu barke ci lislaam. bisu barke la ci lislaam. juddu yonent bi. juddu yonent bi. juddu yonent bi. bésu ci àdduna bi yëpp. bisu barke ci àdduna bi yëpp. bisu ci àdduna bi yëpp. muy ñetti bés. muy ñetti bis. ci benn bés. ci benn bis. fa tabaarakallaahu. yal na yàlla dogal nu jariñoo ko. yal na yàlla dogal nu jëriñoo ko. yal na ah, mu mel na nag. mu mel na nag. mu mel ne li ñu rek moo ci nekk. moo mel na li ñu doon junj moo ci nekk. yàlla. yàlla. yàlla. liggéeyam. liggéeyam. liggéeyam. moo noonu. moo demee noonu. fa tabaarakallaahu. dafa am lu ñuy tuddee. dafa am lu ñuy tudde zamaan. zamaan. zamaan. ak makaan. ak makaan. ak sonal. moo sonal. moo sonal. garab. garab. garab. yàlla na ko ni. yàlla mën ko ni. yàlla mën ko ni. neel dégg. neel dégg. mu ni dégg. mu ni dégg. waaye du ko defe noonu. waaye du ko defee noonu. dañuy jëmbat rek. dañuy jëmbat rek. di sotti ndox. di sotti ndox. di sotti ndox. di toppatoo taatu wa. muy jóg ndànk ndànk. muy jóg ndànk ndànk. muy ba ni léng. rek. fa tabaarakallaahu. noonu la yàlla di defee. noonu la yàlla di defee. noonu la yàlla di defee. Ah, njaboot bu ko muñ nag. njaboot bu ko muñ nag. njaboot bu am ker. dana am ker. dana la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal. loolu ba tax na kon nag. ba tax na kon nag. kër gii. kër gi kër ah, mooy sunu penc. mooy sunu penc. mooy garab gu ni mooy garab gu ni ci kër gi lañu xaj. ci kër gi lañu xaj. ci kër gi lañu xaj. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. kon moom mi nga xam ni. kon moom mi nga xam ni. kon moom mi nga xam ni. mooy taawu ñi ko moom. mooy taawu ñi ko moom. mooy taawu ñi ko moom. bala noo ñaanal sunu bopp. bala noo ñaanal sunu bopp. bala noo ñaanal sunu bopp. ñaanal ko ba noppi. ñaanal ko ba noppi. ñaanal ko ba noppi. yal na ko fi yàlla bàyyi. yal na ko fi yàlla bàyyi. yal na ko fi yàlla bàyyi. yal na yàlla may ko wér. yal na yàlla may ko wér. yal na yàlla may ko wér. yal na yàlla àggale yéeneem ci njaboot yi. yal na yàlla àggale yéeneem ci njaboot yi. mu yabal nga dox. ku mu yabal nga dox. ku mu yabal nga dox. fa tabaar tabarakallahu fa tabarakallahu tabarakallahu te ni ngeen jëfandikoo ci gàmmu gi te ni ngeen jëfandikoo ci gàmmu gi te ni ngeen jëfandikoo ci gàmmu gi te di ko jëfandikoo ci gàmmu yëpp te di ko jëfandikoo ci gàmmu yëpp di ko jëfandikoo ci gàmmu yëpp yal na yàlla ko yalla yalla yàlla